acteurs yi kon mbir mi yëpp ñoo teewe woon bi leen ndaje ngir waxtaanee lépp lu jëm ci loo xamante ni pesticide la te mu bari lool luñ koy utiliser ci lu jëm ci wàllu mbay. mais li ñuy xaar tey ci daje bi mooy xam-xam yoo xamante ni kii dinañ ci mën a sukkandiku pour waxtaan ak décideurs yi déjà ñoom am nañu euh, xereñte am nañu pas-pas bu baax ci nga xam ne déglu acteurs yi ànd ak ñoom si gunge leen. pour que ñu mën a transformer véritablement sunu agriculture à travers une transition agroécologique. fexe ba askan wi di lekk lu sell te set jaarale ko ci campagne de sensibilisation ngir ñëpp mën see jot. li am solo ci àdduna mooy lëkkaloo xam ne lii daal fii du yoon wi fii mooy yoon wi ñu noo si déggoo si mooy sensibilisation boobu parce que bu fekkee ne ñu bari dañuy wax ne ah tànk yi mit yi bët yi nangam nangam nangam nangam produits chimiques yi bon nee ah loolu comme gis nañ ko ñu ngi koy joxoñ wax ñu leen ñu pexe yoo xamante ni xëy na bu ñu defee loolu dinañu jëriñ dootuñu joxañ le pexe yooyu bu ñu see àndandoo ñun ñëpp je crois que mën na jur njëriñ amal mbéy bu ñoŋ si ko def xamle ni waxtaan bi dina lalu ci gàllankoor yi nekk ak jafe-jafe yi nga xamante ni ni moom la béykat yu bëri di jànkoonteel ci àll bi. nga xamante ni bu ñu fi jógee dinañ mën a am li ñu woowee ay solution consensuelle euh, maanaam solution yoo xamante ni acteurs yëpp ko déggoo. bu ko defee ñun en tant que organisation de plaidoyer dañuy jël loolu mën ko mën a yéegee daal koy waxtaanee ak euh, décideurs yi nga xam ni ñoom ñoo euh, ñoo concerné mbir mi. seen bëgg-bëgg nag mooy fexe acteurs yi ngànk lépp lu jëm ci wàll wi fexe ñu trouver terrain d'entente ngir jafe-jafe yi nga xamante ne ni moom la ñuy jànkoonteel ñu mën a toog waxtaanee ko ngir amal ay solution